dañuy rafetlu d'abord li jot a am mais dañuy jàpp ne euh, même 2 juin man ci suma xalaat ndax euh, euh, lu bari mu ci diggante bi muy weeru koor gi muy yeneen diine yi seen i programme muy tabaski ngi ñëw muy période d'hivernage muy dem màkk loolu yëpp ay problème la yoo xam ne man jàpp naa ne 2 juin man en tant que sénégalais jàpp naa ne dafa xat ba tey néew ma nag mun mënta nekk parce que même bu doon suba lañ ko jàpp. bu ñu créer li koy liy tàkk ñi def ko rek dama ciy ànd mais nag du tere ma joxe avis am le loolu man délai boobu dafa gàtt ci man. bon après le 2 juin non dialogue bii na pro lu ñu proposé rek pour le moment comme loolu la ñu proposé dañuy déglu avis président conseil constitutionnel mais li ci des nag euh, sénégalais yi ñooy apprécier seen i seen i gis-gis.